asalaamaaleykum yéen nga xam yéen ñuy suivre si Guédiawaye Info te ñu ngi fii si terrain xale cité bu zone de handicap de Guédiawaye ñu war def reportage ak ñoom ñu wax nan la ñuy paree seen match ñoom ak jamono de mu war nekk match bu métti nekk demi-finale. ñu ngi fii ak coach ASC xale cité bu zone de handicap de Guédiawaye coach ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga présenté wu. waaw ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay ñu ngi leen di fay bon di leen wax ni tey peut-être da ngeen di ñëw sax fekk euh, principal bi nekku fi mais comme ñun ñooy liggéeyandoo moom ensemble adjoint bi moom dafa am empêchement tey moo tax doon na ma gën a neex nag tey bi ngeen ñëwee ngeen fekk ko fi mais malheureusement comme lii la yàlla dogal ñu ñu taxaw rek présenté wu quoi man maay Arona Diaw comme adjoint ak Pa Modou Sy ñun ñoo fi nekk pour l'instant quoi c'est bon. coach nan ngeen di waajalee seen match diggante ak jamono 2 mu doon match demi-finale mu doon match bi nga xam ni ñëpp ñu ngi koy xaar mu doon match bu métti nan ngeen di waajalee match boobu. waaw match bi ñu ngi ci ñu ngi ci bu baax sax bu baax parce que euh, bon ñun xam nañu li ñuy xaar. te xam nañu suñu match ak jamono du nekk lu yomb parce que am na fu ñu jaar ñu ak ñoom daaw jéeg parce que ñoo leen éliminé demi final daaw daje nañ match pour ñu gagné leen ñu dajawaat encore quatrième euh, su ma juumalee suñu quatrième match cinquième match ñu dem ak ñoom niil donc et puis bi nekkoon notaire gagné leen daaw encore moo nekkaat fii te xam naa ne loolu du yomb pour ñoom ñu ñu accepté loolu donc xam nañ ni du nekk luy yomb waaw léegi nag li yoon moo tax ñun tamit ñu ngi jël suñuy respons suñuy mesures yëpp tous les plans muy côté supporter côté entraîneur côté joueur côté dirigeant ñëpp daal pare nañ quoi vraiment xam nañ ni nag nekkul lu yomb moo tax ñu nit ñu ngi suñu liggéey boobu léegi daal gis nga xam nga tey sa samedi mënoon nañ def comme repos mais dina dañ ko entraîné parce que xam nañ li ñuy xaar waaw. kon ñu ñu gis ni seen quart de finale euh, nekkoon na match boo xam ne yomb ngeen dóor ngeen équipe bi score bu rëy te ji ba xam loolu du doon naagu ci yéen wala dara. waaw loolu ñun dañ koy parce que loolu li tax ñu ciy ñaax xale que sport moo demee noonu. des fois mën nga am na loo xam ne mën na la sànq parce que tey jii boo xoolee bu dee jamono am na loo xam ne boo boo jógee ci lële ñëw ne peut-être li nga defoon kële ngay defaat kële boobu loolu erreur la parce que match la rek des fois day varier tey ni muy ñëwee nii nii lay demee donc pour nga dugg ci match yi nag il faut nga préparer lépp xam ni li woon lële ak lii du bokk parce que contexte match yi bokkul lële peut-être quart de finale la woon lii demi-finale la parce que équipe bu bëgg a finale équipe bu nuyu maire donc te comme jamono peut-être gëj na ko def donc même ñun ñi di wax yow équipe la boo xam ne depuis ay at a ngi na final ñu donc kon ñun li daf ñu jaral lu ne daal dañ ci def lu ne moo tax bële ak bi dina am différence. ñu gis ni tamit jamono moom moo éliminé favori bi muy ay see jaxaay ay see jaxaay ba xam loolu tamit nekk loo xam tamit dina leen inquiété wala muy di yéen. waaw loolu xam nga match la rek. parce que boo xoolee contre ñun bi ñu jamono di gagné euh, jaxaay di gagné. te fekk juste ñu tabaski suñu joueurs yëpp dem tabaski ji donc ñoom ay éléments yoo xam ne ay huit titulaires yoo xam ne yëpp dañu manqué moo tax bi ñuy joué ba ñu gagné sax xam nañ nii bu ñu leen amaatee woon dañ xam ne lépp la mais nag peut-être loolu la yàlla dogaloon sport la dañu waroon football ñu gagné ñu mais xam nañ ni loolu ba tey ñu ngi koy sóoraal daal parce que li gagné li gagné euh, jamono mën na gañee ku ne donc ñun ñu ngi sooraale loolu daal ñu ngi koy sóoraale. ñu gis ni tamit réserve amoon na si diggante Jaxaay ak jamono 2. ba xam loolu tamit du doon tardement seen liggéey ngeen xam kan ngeen war a am ak ñoom ñaar kan ngeen ci am loolu ba xam du doon tardement seen liggéey. waaw parce que départ loolu xawoon nañu jaxase tuuti parce que départ bi yow booy préparé sama doo xam kan ngay pareel bon finalement bi ñu demee ba ci biir ñun li ñu suñu xel gën a jox mooy que ne il faut ñu concentré wu ci jamono. parce que comme moo génn ak victoire ne dañuy porté réserve donc ñu dépendre ci réserve dañuy dépendre ci équipe bi nga xam ne donc loolu ci loolu lañ sukkandiku ba liggéey suñu liggéey moo tax depuis durant bi porté bi amee ba léegi ñun ci jamono lañ concentré woo ba yàlla def bi ñu nee verdict bi génnaa na jamono mooy mooy dem donc ñun fekk nañu pare jamono quoi waaye. ban message aussi tamit ngay lancé supporter parce que violence bi gis nañu bëri na trop trop trop trop trop ban message ngay laajee supporter waaw loolu du ma ne sax euh, supporter yi mais ñëpp la ñuy wax parce que xam nga léegi nawetaan dafa yàqu parce que nawetaan bu njëkk da nga daan am envie dem nawetaan. yor sa doom bu ndaw sax am envie téye loxoom dem yóbbu ko mu dem seetaani wala sa njaboot wala sa jabar ñëpp da nga daan am envie jël sa xaay jox leen ñu dem mais depuis violence bi am amatul kenn ko nangoo génne say doom pour ñu dem stade te yooyu lu yu ñaaw la yu ñaaw la af la acte yoo xam ne nii vraiment muy côté xale cité yoo côté jamono ko même ba ci daawaati jéeg sunu match ñu la ñoom avant match bi ay 11h la ñu woon nañu waa jamono yi ak waa cité ñu ngi ci télé bi di xeex sànnante xeer xam nga loolu ay image yu ñaaw la donc ñun fii yëpp ay doomu ndey lañ te sport dafa nekk loo xam dafa war a boole warul séparer tey jii ñun suñu relation yi ak yëpp ci sport lañ ko amee donc sport nekk na loo xam ne nii dafa war a boole mais waratul séparer donc kon ñun ñu ngi ñaan ñëpp daal ñëpp bu ñuy dem stade nañu dem ci dal dem ci yar ak teggit dem seetaani football football moo leen yóbbu ku ci yàlla may ndam nga xam ni yow la yàlla may ndam parce que kuy dem rek da nga ñaan yàlla gagné mais nag mën nga dem yàlla def safaan ba mais bu safaan amee nga nangu ni yàlla mooy dogal parce que joueurs yi dañuy dem pour bëgg a a a a gagné mais nag suñu borom mooy dogal ku ci yàlla jox ndam nga xam ni loolu la yàlla dogal mais nag il faut ñu demee ak diin xam ni vraiment affaire du ay agression ay sànni xeer wala gaañ fi loolu loolu vraiment ñu ngi koy ñaawlu rafetlu wuñ ko dara dara dara ñu ngi lay jaajëfal coach waaw coach mm-hmm. jërëjëf jërëjëf yàlla waaw maa leen di fay du nuyu nga xam di teew rafetlu seen teewaay fii ci quartier bi lay wax ni jamono de suñuy dëkkandoo lañ xam nga masi la comme yeneen masi yi ñu ngi koy préparé dañu ko war a préparé quoi di sant supporters yi dirigeants yi xam ak képp kuy jour quoi cap bi nekk fi dafa nekk xam nga moo tax ma wax ci place am quoi mais bis loolu desee après xam nga maa ngi déglu say question pour répondre waaw nga présenté wax aussi yow yaay kan man maay Mamadou Dieng dëkk Guédiawaye juddoo xale si te yaroo fi màggee fi waaw nekk ci équipe bu yàgg loolu nag. waaw Kapi ñu laaj la nan ngeen di waajalee seen match ak jamono doo mu doon match bu rëy boo xam ne géejawaay yëpp ñoo ngi koy xaar. waaw dëgg la match bi match la rek comme yeneen match yi comme ni ma la ko waxee sànq. xam nga match mënuñu dépassé quoi parce que xale si de yaakaar naa ku ko déggul tamit xam xam nga ko quoi amul bis bu mag bu ñu séewu ci amul bari bi match bi dañu war def lu ñu war a def liggéey li ñu xamante ni war nañu mën a may ndam incha allah bu ñu xam nga yàlla may ñu ci kaw jamono ñu gis ni jamono do tamit lu yàggul dara def si quart de dafa tënn en échec muy ASC Jaxaay bi nga xam bokkoon na si favori zone de récap de Guédiawaye te tamit Jaxaay gis nañu am na ndaw seen am na ndam seen kan ba xam loolu du doon inquiétude ci yéen non loolu mënul doon inquiétude ci ñun parce que Jaxaay bi mu ñuy dóor circonstance yi mu ñuy dóoree ñëpp xam nañ ko équipe bi complet wul xam nga ay détails am ci wir moo tax mais Jaxaay du xale cité li Jaxaay di football xale cité du ko football bu boobaa buñu dajeek jamono 2 di nga xam liy Jaxaay du xale cité quoi wax dëgg yàlla ndax jaxaay dafa am ay capacité ñun ñu am suñuy capacité bis bis baa nag nañ la wan ñun naka lañ mënee quoi contre jamono de. tamit gis nañ tamit violence bëri na trop si ban message ngay lancé supporters yi si violence

Euh, maa ngi leen di fay maa ngi tudd Abdoulaye Diop euh, nekk euh, dirigeant ci Xaley Cité di nuyu seen auditeurs ak auditrice yëpp di nuy tous les membres de l' staff de waaye Info di nuy aussi les supporters l' équipe dirigeante le staff technique de l'ASC Xaley Cité. Président ñu bëgg la laaj nan ngay waajalee sa match yaa jamono doo mu doon match boo xam ne match bu rëy la Guédiawaye yëpp ñu ngi koy xaar. bon comme d' habitude ah ñun bi ñuy commencé xam nañ ne ci tournoi lañ nekk.

ñu gis ni réserve amoon na diggante jaxaay ak jamono xamoo leen ngeen doon toog quoi di am inquiétude ci ban kan moo si war a doon seen adversaire loolu ba xam doonul tardement si yéen. waaw non ñun ñun on était serein bu inquiétude am xëy na jamono ak jaxaay ñooy am inquiétude comme ñun dañ leen doon xaar rek te ala kulli dina am kenn kuñ ci war a am donc ñun amuñu woon inquiétude à ce niveau dañ doon toog xaar ñoom ñu régler seen problème après le reste ku ci ñëw rek ñu jouer yow comme ni ma ko waxee rek objectif bi euh, jamono da cee bokk. parce que boo nee da nga bëgg a jël coupe da ngay calculer ne équipe bu nekk mën nga koo am ci parcours bi donc euh, ku mënoon ñëw rek waajal mu ñu doon def rek wàccuwaay boobu aussi la ñuy am ñoom yow. ñu gis tamit aussi seen quart de bi amoon na facilité trop quoi match bi yomboon na trop loolu tamit ba xam du doon naagu ci yéen wala dara. non mënul nekk naagu si ñun parce que xale cité aussi bu leen fàttali ne défaite la commencé donc bu tàmbalee liggéeyaat ba tey yàlla def mu bokk ci meilleure équipe bi en terme d' bokk ci meilleure équipe bi en terme de défense ça veut dire que aussi dirigeants yi am nañ maturité côté boobu. également mënul nekk naagu si ñun parce que c' est la première fois xale cité di dóor score euh, jamono dóor nañ ko fi ouverture 4 buts a 1 donc dirigeants am ay dirigeants lañ yoo xam ne nawetaan peut être dara jaaxalatu leen ci am nañ vécu bi am nañ expérience bi donc les matchs bu ñëw rek ak li mu laaj rek loolu lañ ciy def quoi donc naagu mënul président bi ñu gis ni violence bi commencé na fréquenter trop trop trop trop trop si stade bi ban message ngay lancer supporters yi. bon euh, ñu gën a dal rek yàlla def na moom xale cité kenn mësu ko gis si côté violence euh, am nañ ay supporters am ay dirigeants yoo xam ne yàlla dafa def tamit xëy ñu dégg slogan wu cité muy la force tranquille euh, bokk na ci équipe yoo xam ne ñoo gën a dal bokk nañ ci supporters yu gën dal te saa yu stade ak lu mënta am rek dañuy ñëwaat ak ak équipe donc di laaj di ñaan rek yeneen supporters yeneen équipe aussi ñu am esprit de dépassement boobu am esprit de fair play te xam ne nawetaan moom chaque année dafay ñëwaat donc loo ñàkk ren rek mën nga ko amaat déwén quoi. ñu ngi lay jaajëfal président. waaw ñoo ngi fi ak président comité supporter bu xale cité nuyu nañ la. waaw salaamaaleykum maa ngi leen di bu baax di leen bëgge waaw maa ngi leen di bëggewaat bu baax baax waaw di nuyu sama gars yi nga xamante ne ñoom laa waaw ñu nekk tamit xam nga ay supporteru xale yi cité waaw wax dëgg yàlla bëgg Max bi nag lool lool lool lool lool waaw bëgg nañ ko lool waaw. Ndiogo ñu wax la nga présenté wu pour ñi lay suivre gën la xam. waaw man la Ndiogo Ndiogo Baye Fall taalibe sëñ Abdou Karim Mbacke mu sëñ Fallou waaw naan leen waa jamono ngeen waajal ngeen waajal waaw ndax fa ma leen jaaroon rek daanaka fa leen jaaraat waaye Ndiogo ku wax. waaye ku wax nawetaan wax euh, wàllu supporter wax wàllu asiko wax wàllu zëngal te jamono ñu gis côté boo xam ni côté boobu foor na ci trop loolu ba xam du doon loo xam dina di yéen wala dara. waaw jamono moom lu mu mën a yëngal mën a yëngal mën a yëngal waa xale Cité rek a ko jaaxal xale Cité rek a ko jaaxal waaw. te ni nag ñoom ay géwal lan yoon la ñu mën a tàccu mën a taasu fii nag équipe bu Baye Fall la dañuy ñëw xam nga kii wu Seera Fall gi yëngu rek ñu defal leen affaire comme d'habitude rek nañ laan daan def. jamono pain au la rek dama ko def ci benn pot denc ko pour mu sekki dama ciy dolli ndox mu sekki rek. waaye keroog ñu gis seen mas seen carré final mu doon mas boo xam ne ngeen dóor score bu rëy mas bi yomb torop ba xam loolu du doon naagu ci yéen. non non xam nga lii benn genre équipe la rek mais jamono dóor naa ko fi quatre dóor naa ko fi dë bii lay raw. di six laa koy dóor. kaat yi ma indi ak deux yi ma indi. waaw ah, ñu lay jaajëfal bu baax Ndiogou. Ndiogou ban appel ngay laaj si ba ngay laaj si supporter bi si violence bi nga xam ne gis nañ ni bëri na trop ci stade bi quoi. waaw wax dëgg yàlla ñun moom képp ku xam xale cité te yàgg a supporter xale cité war ngaa xam ne cité moom yooyu doxu ci. ñun fair rek ñun suñu coow coow coow coow ci biir terrain bi la ñaari équipe yi football mais ñun buñ la gañee dañuy dox nànk ñibbi boo ñu gañee dañuy dox nànk ñibbi waaw. te koy ñaan tamit yëpp ñu àndandoo daje fii ci terrain bi ñu àndandoo dem esaat dox nànk dem dóor ko siis doxaat nànk ñibbi si incha allah bu neexee yàlla. ñu ngi lay jaajëfal terrain xale cité def reportage ak ñoom ñu wax ñi na la ñuy préparé seen demi finale ñoom ak jamono 2 kon boog ñu mbokk yi ñu ngi leen jox rendez vous ak si terrain jamono 2 incha allah ak waa ay see jamono.